jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbokk yi ziar a baax di ko sàkku ci yéen Medina TV ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak moom ngir lépp la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen mën koo am à temps bi nga xamante ne moom moo ñeel Fatou Aziz Dabala ak Wally bi nga xamante ne kon ma ngay wéy ginnaaw kon ba ñu xamle ne moom mi nga xamante ne kon avoué na moom moo ko faat muy Modou Lo kon ñu jàppee ko ca jannatu indi nañ ko niki di biig ci guddi eh, ci Dakar loolee nag eh, dikk moom moo ko def ginnaaw kon bi ñu xam ne ne Cheikh Adramé Sarr eh, moom moo yor enquête bi waaye moom Modou Lo moomee mujj naa avoué ne moom moo ko faat ginnaaw moom moo leen faat ginnaaw loolee kon yokku na ci ne am na ñoo xamante ne kon ñoom ñoo ko jàppale ci mbir moomee ndax am na ñoo xam ne ñoo jàppoon tànk yi ñiy jàpp loxo yi waaye yokku na ci rek nekkoon mbir ma moom dongo defu ko tey daal ay tur euh, ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo def euh, mbir euh, moom moomee ci loolee itam moom nabu Leye miin ngeen ko bu baax a baax ndax curam jib na lu baree bari rek ci li nga xamante ne moom mooy enquête bi ginnaaw bi ko yoon dee déglu bi mbir mi amee ak léegi kon ni ki démb mujj nañ ko placé si garde à vue ginnaaw moom Modou Lo moomee ba tey bi mu ko cité rek daal di ne moom Nabou Leye moomee ab complice la ci mbir ya tax na kon jamono yi caabi mujj na koo féete waaye rek Euh, ba tey rek cité na itam keneen koo xamante ne ginnaaw xibaar bi nga xamante ne kon am nañ ko mujj nañ koo teg loxo euh, moom moomee nag euh, mën nga dëkk sax ca fa nga xamante ne moom mooy ginnaaw raay am na itam ñeneen ñaar ñoo xamante ne kon seen tur mujj naa jip ca la nga xamante ne moom mooy enquête bi niki bi ci guddi bañ daal di leen teg loxo kenn ka nag rek mën nga dëkk fa nga xamante ne moom mooy ginnaaw raay kenn ki nag euh, moom mooy ka nekkoon ca jannatu xibaar yooyu nag ñu ngi ko am ginnaaw kenn suñu ay naataango moom Fall Ndiaga gis nañ ko bu baax a baax ni muy àddoo ci mbir ya ak xibaar yi nga xamante ne kon njort wala boog euh, wax na ne ay sources yu sûres la ko jëlee kon moom ci moom dañu relayer information yi nga xamante ne ñu ngi koy joxe muy moom euh, Fall Ndiaga moomee daal di wax ne kon jamono yi yoon teg na loxo cinq personnes yoo xamante ne kon seen tur jib na ci mbir ma waaye rek benn bi nga xamante ne kon attiré na attention sénégalais lay bu baax a baax mooy bu Nabou Leye ndax Nabou Leye nag ñu bëri gis nañ bi nga xamante ne na ci digganteem bi nga xamante ne amoon na ci digganteem ak Aziz waaye confidentialité bi nga xamante ne amoon na seen diggante na ko ci doon tudd ñii di ay mbokk Aziz ko wecci waaye xibaar bi nga xamante ne wàcc na kon niki démb ñu daal di ko ciy tudd bu a baax wax ne moom Nabou Leye moomee kon complice la ca mbir ya mu mel ne kon loxo der na gémmiñ ginnaaw bi sénégalais yi am kon ci ne bu ne kon Nabou Leye moom ko def kon lan la nit di doyeeti xarit waaye rek bu nekkee itam moom Nabou Leye moom moo ko def mu mel ne kon Sénégal ñu bëree bëri dinañ am mbeteel ak naqar ak ndax xaar ñu ko woon benn yoon waaye ñu sàkku ne kon bu dee Nabou Leye kon yoon mujj na ko setal laale wu ca benn yoon na Sénégal gi yëpp rek daal di taxaw jéggalu waat ko bu baax a baax waaye en tout cas daal lu ci munti am moom actrice danseuse bi di Nabou Leye nekkoon xaritu Aziz Dabala te it nekk ak moom ci dundam yu mujj partagé ko ak moom kon jamono yi mën nañ ne ma nga ah, ma nga ca fa nga xamante ne ah, moom mooy en garde à vue ci loolee mbokk yi kon dañ leen di jox ah, ñi nga xamante ne kon ñoom jamono yi ñoom ñoo nekk ca loxol yoon muy Serigne Sarr Omar Gueye Modou Lo Assane Diaw kon ñeent ñoo kon dañu wax jamono yi ña ngi ca euh, loxol yoon euh, buñ ci toog te toftalee nag ki nga xamante ne moom mooy Nabou moom moo koy def juróom muy cinq personnes yi nga xamante ne kon am nañ ko de source sûre que ne jamono yi yoon teg na leen loxo ngir gën a wéyal li nga xamante ne moom mooy enquête bi nga xamante ne mi ngi en ci loolee ñuy félicité bu baax a baax rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy dikk ak ñu yor wàllu l'enquête ba ci xarañteef gi nga xamante ne ñu ngi koy def ngir mën a feeñal ñi nga xamante ne ñoom ñoo def ñaawteef bi Aziz Dabala ak Wally waaye ci loolu rek ñaanalaat bu baax a baax ñaari yooyu suñu borom yërëm leen xaaral leen àjjana tey yeesal yërmande si ñoom bi nabi sallallahu alayhi wasallam mbokk yi leen di topp Medina TV ci programme yi nee leen boo leen abonné gul leen ngeen partage di like waaye lépp loo xamante seen gis-gis la baa seen jàngat ci mbir yi ngeen koo bàyyi ci commentaire yi su ko defee dara du leen ci information d'ici et d'ailleurs jërë ngeen jëf. déglu nanu ki nga xam ne mooy Tafa nee moom moo xaw ma laa diva xaw ma lan lan la bindati yéen nga naan déglu laa diva xaw lan fii de laisse tomber de ku si nekk day jële ci xibaar YouTube wala leneen ñëw andi la fi <laughs> mooy lim leen di wax rek gisuma sax laa diva hmm? donc ñu déglu kii hmm? laa diva lan nga wax gisuma sax loo bind mais mun naa xaw ma lan loo bëggoon doole. ñu ngi sant borom yi. waaye yéen bu baax. Faal Ndiaga bu wax na lu mu wax. bisimilah bisimilah. alors man de je suis pas habitué di yeeg la nga bind commentaire atal ko ma xool lan nga wax. Euh, bisimilah kii euh, la diva gisuma sa commentaire commentaire at ko ma xool lan nga wax. bisimilah ñu ngi lay déglu moom kii. Maymuna wala kani naka mu mbàyyee nañ ci jàmm waaw dama daj léegi ci compte euh, réew mi net muy euh, honnêtement un journaliste professionnel professionnel autant pour moi koo xam ne du journaliste TikTok du journaliste buy waxantu euh, ci ay fo ak ay kaf vraiment il est très professionnel moo tax sama osé yëg ci sa pour wax mais honnêtement ku dem foofu gis li publier bu dee na waar daal na waar parce que bugguma wax ay turu jàmbur aussi am benn problème mais allez-y tous voir ce qu'il a publié là-bas y a juste trente minutes mais diinu lan ne kooku nee na arrêté nañ quatre personnes ah, waaw wax ñu et cette femme que tu as ici euh, il ci complice yi la bokk voilà cité na ay nom bu ngeen demee ci compte réew mi net di ngeen ko dégg yéen ñëpp voilà donc loolu laa amoon ci lu may mu doon lu ma bett bett bett na parce que oh honnêtement ba remercier na ci ay euh, commissaire dig Adrame Sarr mu lay won ne information yi mu yor lu fu leer la ko teg voilà cité na waa dig yëpp mu lay leer ne kii kon dig la jógee jëli ay information donc euh, bett na ma bu dee lu véridique te gëm naa ne lu véridique la c'est c'est horrible voilà donc loolu ci lu may wax di ñaan sénégalais yi ñu delloo siwaat seen xel xam ne ci teraanga lañ ñu xam ci mbaax lañ ñu xam ci yërmande lañ ñu xam nañu nañu wàññi sunu bëggum xaalis buñ ko bëggee it nanu xool façon bu ñuy doxalee nanu góorgóorluwaat ci sunu doxalin bu dul dara sax sunu digganteeg sunu boroom parce que sa digganteeg sa boroom du rek jaamu yàlla sa dund ak nit ñi sax façon façon façon doxalin la ak sa digganteeg sa boroom jaamu yàlla la donc les les les sénégalais yi nañu àndaat ak sunu xel nañu àndaat ak sunu xel sécurité bi ci ci dëkk bi Californie doy na waar ku ne nelaw nga semaine bii da ngay wax lu la neex man dama woowaat sama menuisier bi sama kër yëpp daanaka dama yokkaat ñaari serrure buntu yëpp laa yokk serrure parce que kenn tëddatul nelaw kenn nekkatul ci jaam lii metti na ci xol metti na ci xel metti na ci déggin kon nag nañu indiwaat suñu xel ngeen baal ma ci wax ji gudd na waaye lii laa woon Kaliphone na yéeg wax ko d'accord jërëjëf àndaat xel Cheikh Sénégalais jërëjëf merci merci merci euh, El Xawma bisimilah. Kali maa ngi lay ziar. ñu ngi doon di ziar bu wér. yi tey bàyyi ci jàmm. ñu ngi sant borom bi alhamdulilah loo bugon doole bisimilah. non yow kay man kay fi mu toll nii li may doole man yow dong laa koy wax yow dong laay remercier ndax démb dama laa déglu ci live fu aw bam jeex.